si alhamdulilahi alhamdulilahi alhamdulilahi hamdan yuwaafi ni'amahu wa yukaafi'u mazidahu wa yadfa'u anna balaahu wa ni'amahu alhamdulilah ala kulli haalin gannaaw bi ñu sant yàlla julli Muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax yéen yi nga xam ne da ñëw fii ngeen jàpp ci liggéey bi nga xam ne yàlla atte na ko ci suma ko ma di ko liggéey ngeen nekk it ay tasukat kabaar nga xam ne eh, man ngeen ko yeggale foo xam ne ñun mënuñu ko fa woon yeggale kon alhamdulilahi rabbil alamina yaa ngi may laaj léegi mbir yi naka la soso aw man dafa am ay jamono yàgg dama jóge woon fii dem jàngi ji bi ma demee ci daara yi eh, ma mujj nekk ndar foofu laa jóge ñibbi fii bi ma ñibbi fii maa ngi ànd ak ay taalibe lu ma sa nekk ci suma xel nag mooy liggéey eh, ma bugg a dab suma warsak ci liggéey boo xam ne maa koy liggéeyal suma bopp yàlla def nag mm, bi may ñibbisi maa ngi amee ay taalibe xam naa ne juróom lañu woon at boobu laa jëkkee dugg ci tool ma ban eh, at bi quatre vingt la woon laa jëkke dugg ci tool ma def toolu gerte ñu bay ko ba sa déwén sa ma dolliwaat li ma bayoon yàlla dawit taalibe yi ci diggante gi taalibe yi ñuy jàngal alxuraan ñuy yokku bi mu demee ba quatre-vingt-quatre fekke ne taalibe yi at boobu li fi nawet ci ndongo daara quarante cinq la woon ci ndongo daara yi ma gën a soobuwaat nag ci liggéey bi di def ay tool di dem di ñëw ndax man lu ma mës a gëm moo de ne adduna gii li koy doxal moo de ne kam-kam liggéey jaamu yàlla nga setal sa xol doo bañ kenn loolu laa mës a gëm ma dugg ci loolu nag ma de doxee noonu eh, ni ko yonent bi diglee rafet na ci jukki jullit loo xam ne du sa soxla bul ci dugg man ma def lii mooy suma soxla ñu dem nag dem quatre-vingt-deux ba quatre-vingt-huit quatre vingt taalibe ñu ngi yokku ma seet fii ci àll bi ma créé fa benn dëkk dëkk boobu ma taamu ci woon ku ma fekk si fii pour bugg a liggéey fekke amal naa la ab suuf boo xam ne mën naa la ko joxoñ ma ne la na nga liggéey fii dëkk boobu Riyadil Fala laa ko tuddee woon e, taalib yi di yokku nag nit ñi di ma fekk si ci goxu senegal yi ci bari boobu rawatina ci Saalum gi bi ma gisee ne taalib yi ñu ngi ñëw ma créé waat beneen dëkk boo xam ne boobu sax ñun foofu lañ dëkkoon waaye mujj bi dañ toog woon ñëwaat boggal ndax boggal gii lañ jëkkoon dëkk ñu tokku dem ci dëkk boobu am fa ñaari fukki at ak juróom-ñaar mag ñi jógewaat foofu sencaat fii foofu nekk gente kenn dekkatu fa woon bi ma ñibbisee ba defar euh, dëkk bii may wax euh, riyaat ma gis ne nit ñi bari nañ ma delluwaat dëkkaat dëkkalaat gente boobu su ma xabri suma papa sax foofa ci dëkk boobu boobu it ma tuddee ko daarul bayda nit ñi di ñëw ma ànd ak ñoom di liggéey ci tool yi di ànd ak ñoom di liggéey di liggéey bay suuna bay gerte bay mboq bi mu demee eh, dëkk boobu maa ngi ko sànce eh, quatre-vingt-dix moom ak bale fukki at la ñu rawante foofu itam yàlla def nit ñi di ñëw nit ñi di ñëw nit ñi di ñëw ba foofu it tabaarakala mu nekk dëkk bu mag yàlla dimbale ma ma jógewaat foofu demaat seeti beneen àll àll boobu moom kal na fi sori ndax su dee Riyad deux kilomètres la fii ak foofu su dee Daaru huit kilomètres la su dee dëkk bi may wax nii nag boobu quarante huit kilomètres la moom ci yoonu ci yoonu bi la nekk foofu itam nit ñi di ñëw di ñëw rek eh, foofu itam ba yàlla def na. am na jamono nag yi ak taalib yi nga xam ne dañoo jàng alquran yi ci bari foofu lañ nekkoon euh, ma jiita fa suma benn xarit di suma euh, di suma morom ñu ko wax Cerno Bokar Diallo moo jiite foofu moom itam di ànd ak ñi di liggéey bi mu demee nag bi ma gis ne ñetti dëkk yi taxaw na ma delluwaat ci sunu boggal gii nag ma seet ci suuf si yi nga xam ne maa ko moom amal naa ko ay kayit mu jël ma jël ci benn cent hectare ma collecté ko ma ko collecté eh, ma fas yéene nag eh, def fa tool ak dëkkuwaay mooy fi ñu dem Sankani eh, ma lotissé ko ni nga gisee ma lotissé ko noonu ba ma pare léegi ma ngi ci bay gerte ak i mbokk ma jël ay nag yitam andi def fa nag itam macha allah man naa ren laa ko andiwaat waaye war nañ am deux cent nag yoo xam ne maa ngi koy tàmbale pour du dekkalaat ko foofu moom itam e, bi ma defee loolu yëpp nag ma dugg nag ci jëmbat ci ay garab ma xool garab yi nga xam ne ñu ngi woon ci àll bi di bugg a ma indi ko def ko foofu garabu kay yi nga xam ne dégg naa ne su baree barab day ñutti ndox boobu itam ma def ci ko def ko foofu lu bari def naa fa it garabu tiir def naa fa mango yi li nga gis jes def naa fa it eh, ora eh, am na am na limon bu ci nekke daal ci ñetti xeet yi yooyu moom bu ci nekke romb na junni kay ëpp na junni Eh, limon bi ëpp na junni mango bi ëpp na junni balaa may dem foofu nag fekk jëkkoon naa fi def benn toolu mango boo xam ne moom 84 laa ko créé woon boobu mu ngi amoon eh, junni ak juróom te 1500 moo fa nekkoon ci garab gannaaw suggi ma créé beneen tool boobu ay kasu laa fa def dara kese moom def naa ci 1007 laa fa defoon ci garab yooyu yëpp nag buga nit ñi jàpp ci di liggéey di jaamu yàlla ndax nag fekkee ne yaa ngi wax def leen nii te yow doo ci def dara ah su leen nekkee ñu gëm la su leen nekkee ñu bañ laa gëm te yàlla defa ko tere ñiy digle dafa ne kanaa yéen ataamuruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum kanaa yéen da ngeen da digal nit ñi mbaax te yéen du ngeen ci bokk loolu nag aaye boobu daanu ci suma ko loolu laa bañoon ma de wax nit ñi góorgóorlu leen na ngeen jàng nangeen liggéey nangeen ngeen jaamu yàlla te ci kaw gi fii eh, liggéey bi métier bariwut eh, du du du affaire eh, du big ngay liggéey sa doole rek ngay liggéey sa doole nag gis naa ne soo ko defee ci suuf si te nga teg ko ci yoon lu ko gën a gaaw ci développé gisuma ko kon nag loolu moo doon jubluwaay bi alhamdulilah rabbil alamin Eh, ci lii lañ li lii ngeen ma fekk eh, maa ngi leen di sant nag ndax am na loo xam ne eh, ñun mënuñu ko wone fen dañ ciy nekke rek waaye ku baax ku nekk seetlu naa ne soo ñëwee fi bi nga dem foofu dangay naw li ñuy def danga ñëw ci gën a encouragé kon sëñ bi kontaan naa ci yéen yàlla yokku leen daraja yokku leen barke te musal leen allahumma salli ala sayyidina si tool bi. ni d'habitude ñu bari bu ñuy liggéeyul dañuy woo benn géomètre. waaw wala leen. waaw ne leen tracer leen nii daf leen lii dagg leen fii. waaw mais gis ni yaa def loolu lépp noo xalaat. loolu daal dama jàpp ne ndimbalal yàlla la ndax itam nag jumaa ji bokk naa ci ñu ko xelaat ci bâtiment yu bari fii itam. man rek maay taxaw ma ne nañ def nii waaye nag li ma yàlla dimbale lu ci ëpp su ma ko defee su ma gisee ñu mel ni yéen damay lay laaj ndànk mbaa li man li ma def nii baax na wala déet soo ma ci gàggantee rek danaa nangu gàggante loolu noonu lay doxee daal waaye tool bi maa ko tracé nii nag ah, non maa ko tracé nii te insha allah des na tuuti jàpp naa ne su lépp joge dina gën a yem nit ñi ndax man xam naa wakuma wakuma li ma def nii waaye su paree bu ëllëg nu muy mel loolu laay gis ci suma bol yi man. waaw. ingénieur yi mhm. léegi dëkk yi ma sance nii soo ci demee comme que yooyu xam nga yii moom sunu baay yi ñoo fi nekkoon ak sunu yii du maa ko créé waaye dëkk yi ma créé mbedd yi soo ko gisee lotissement bi rafet na lool ci ñetti dëkk yëpp nga xam ne man may takaw na def leen nii def leen nii loolu moom noonu la mel mhm. fii itam ci bi li ma yokku ci dëkk bi lépp. noonu laa ko defe kanaa kër yi nga xam ne fekke naa nii lañ mel ñoom rek laa bàyyi nii suma kër ci la bokk yeneen kër yeneen ñetti kër ñeenti kër ci lañ bokk mm-hmm. doo ko sàggane mm-hmm. li naan comme kuy jàng taalibe rek. waaw na dinañ dóor xale pour mu gën a way ëllëg. waaw loolu gis na ni am nga rigueur bu bari. waaw loolu lépp. noo ko jàngatee. lan nga laaj. man ni nga amee rigueur bu personne euh, xalaat bi walla. xalaat beeg. Mhm. Euh, ni ngay ëllëg. Mhm. bi. waaw ak maanaam euh, rigueur mën na si olof. waaw. déedéet man ma man sàgganewu dara. ndak yàlla defa wax ci téere bi mu ne moom sàgganewul dara ci ci dundum nit adduna bi yépp eh, min eh, amul dara lu ñu bàyyi ci téere bi lépp mu ngi ci téere bi kon noonu laay dundee moo tax bi ma ñëwee daara eh, daara lañ ñu kamee woon. waaye man bi ma seetee adduna bii ni muy doxe man maa ut école ma ut ko boobu diwaan bi am na ñu am école waaye bariwut woon maa ko ut bi ma ko amee eh, ma seetlu ci benn benn mbir bi ma ko ci seetlu ma xam ne loolu jëmul kër école primaire rek lañ daan am léegi si xale bi rombee école boobu ñu ne léegi foog dañ koy jàllale Bunkiling walla Sédhiou wala feneen soo ko defee da ngay gis waay way juru bi mu ne ah man foofu kaw ma fa kenn te fekkee ne xale bi mu ngi toll foo xam ne amagut buga buga ci jànga kon soo ko négligé rek mu faf bàyyi léegi nag boobu laa jéem bi am CM bi ma am CM bi ma amee CM bi léegi ma jàpp ne fii xale su jàngee ba am ba am na ci ñoo xam ne dañoo daal di commencé bugg a jàng suñ commencé bugg a jàng ñooñu mën nañ forcer seen way jur ba ñu mën leen yóbbu feneen loolu itam ma nekk ci nekk ci nekk ci ba jimu mu jamono ma commencé di ut lycée ba daaw jeeg lañ ma dimbale ci lycée bi lycée mu ngi fii alxuraan bi eh, ni ko mag ñi daan defee rek lañ ko daan defee jàng ci duuday waaye mu bi am nañ daara moderne boo xam ne mu ngi fii ci gannaaw kale yu bari fii la ñu wootee alquran loolu yàlla jàppale na ma dimbale ma dimbale na ma ci euh, yooyu yëpp nag pour ëllëg lay xalaat. Mhm. dafa balaa mhm. njiitu réew mhm. eh, man njiitu réew lu ma wax rek danaa ci ànd. bu dul ne bul bul jaamu yàlla njiitu réew lu ma wax rek danaa ci ànd. sakantuma mu nekk loo xam ne ndimbal la pour man ndimbal la it pour gox bi ndax eh, eh, ci li ma def amna amna am fi, jamono fii dañu am fii xur boo xam ne ndox mi dafa daan jaar foofu rek di jàll di jaar foofu di jàll bi ma ne ndox mi suñ ko fi téyee mën naa amu amal ñu jëriñ ma jël jël foofu lu mat vingt cinq hectares ma defar ko ba mu ma ñaan ndimbal ak suma doole bopp ñu baare ndox mi biñ ko baaree ndox mi fi mu ne nii nit ñi danañ ci am euh, nawet noor ak nawet danañ ci am ay tool te yooyu xam naa ne su fekkoon ne liñ fay am yëpp dañ ko dajale lu mu dee dee dee war nañ fa am deux cent million bu teg te ay jigéen yoo xam ne mëna luñ leen seen bopp woon dara waaye léegi loolu ñu ngi foofu gannaaw bi comme ni ma ko waxee rek bi ko euh, gouvernement bi yeggee Eh, am na ñoo am na beneen barrage boo xam ne ñoo ma ci dimbale boobu defuma ci woon dara. Mm-hmm. alhamdulilah. Mm-hmm. déedéet man kay maa yi <laughs> kontaan ci yéen. Ah, nit waaw waaw dama lay hmm. hmm. fii man egg si de moom nag ñëw na toog fii ne ma dana ko fi def waaye yàlla dogalu ko. Daara moderne tamit. Daara moderne jamono da lañ ko tàmbali waaye moom bi mu eggee da liggéey bi dafa arrêté man suma bopp maa ko eggale kenn dimbaleetuma ci. Hmm? Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade moo ko créé woon. moo ñu mayoon daara moderne ñu tabax ko ba tabax bi rancé ci diggante bi bi mu wàccee ñu xaar nguur beneen nguur bi waaye amuñ ci tus léegi man maa fekke ba mottali ko loolu mu ngi fi daara bi ñi fi dëkkee it xam nañ loolu. Hmm. waaw tali tali bi itam de soxla nañ ko lool. ndax suñu dëkk yu gën a mag sag mu ngi fii ci gànnaaw yëpp ci tali bi la ñuy jaar waaye tali bi ba tey boobu itam jamono makisal ñëw na fi mu ne ma danañ tali tali bi yàlla dugalu ko mu ñëwaat fi wakaat ko yàlla dugalu ko jumaa ji it waxoon nañ ci waaye seen seen dërëm demu ci dimbalal yàlla ak itaali bi yi rek waaye nag nit defaluma dara loolu du ma booleeg kenn ndax nit ki ci coobare boppam la ko mën a defe ak lu yàlla atte su ko yàlla attewul su ko buggee du man a nekk moo tax dimbale ma loolu duma ci am xaar ma yàlla ak kenn loolu loolu na ma yàlla dimbalee ndax it eh, comme benn waay jóge na fu mu jóge mu def ci jumaa ji loo xam ne géew woon ne suma nguur doon dimbale na danañ ci def lu toll noonu kon loolu soo bàyyee ak sa boppu yàlla rek yàlla mooy defar alhamdulillahi rabbil alamin jërë ngeen jëf ci lépp